billahi min asheytaani irajim wa in uhiisuha bika wa duriyataha min asheytaani irajim rabbi auzu bika min hamasaati shayaatiin wa auzu bika rabbika an yaxdurin bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin sayidina muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi sawir ridwaani wattamkin amma baadu fa yaa fa haasal yowmu yowmul iid li kulli muminin muslimin muhsinin said fashkuru llaha tabaraka wa taala fihi ala kawnihi sururi nabi wa liman yaqtafi sala wa sallama alayhi llahu fi alihi wa sahbihi wa kulli man taala wa uusikum fihi wa baad bi munaasabati maxtiira lakum min al axlaaqi wal aqaaidi wal aqwaali wal afaali wajhi llahi taala al xaayib wa aasirukum fihi wa baaduhu an fihi ma lam yuxtar lakum min al ibadaati wal aadaati fa innama axtaarahu llahu tabaraka wa taala lakum huwa jaamiu saadati wa tuuba liman laa yaltafit ila xi rabbihi mulaasiman maxtira lahu min munir rabbi wa waylun liman xaaduhu iblisu illa ma sha fa innahu yulaasimu ma aqsa wa asa qaala allahu tabaraka wa taala faman yaxmal misqaala daratin xayran yara fa tuuba liman axasa ma ata bihi rasul alayhi bi alihi wa saxbihi salama muti suul wali la si himmatuhu tartaxi ila xayri laa ila alkadaf wa dayri waylun liman a liman yaqsu ma ata bihi muntaxa alayhi bi alihi wa sahbihi salaaman jaara bi ittiqa wa usikum ayuha alixwaan li wajhi man kafaani sawi alxasri walhudwaan bi an laa tufaariqu maxtiira lakum abadan fa inna mufaaraxatuhu tajru ilaykum alama wa kabada wa anhaakum an fihli ma lam yatabayan lakum kawnuhu sawaaba fa innahu mimmaa yujibu mimmaa yuwajjihu ila xayrikum al ajra wa rida wa sawaaba wala tatlubul karama bi xayri taqwa fa inna al karama huwa taqwa wala tatlubul izzata min xayri asiisin mu'izz bi jaahi abdihi nabiyihi rasulihi ans fa inna man adbara an illahi tabaraka wa taala ila siwaahu tarakahu maa nafsihi wa hawaahu wa man aqbala ila allahi tabaraka wa taala maa alwasila xaada ilayhi kulla ma man kulla ma kaana yaxtari yartaqi ilayhi min jamila yaa ayuha nnaasu ubudu rabbakum ittaqillah aysu kunt man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri falyaqul xayran aw liyasmut qad axbarani rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama wa baraka anna man taaba min ummatihi qabla mawtihi fa innahu yassahu fihi inda mumitin mayit wa an wa anna man lam yatub minhum tawbatan nasuha faqad amarahu wa man wa'azahu nasiha rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabbaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufun rahim alhamdulilahi lasi jaala yowma alxiidi yowma tawsiati wa tafriixi wa itlaax wasalaatu wasalaamu ala man axrajana min zulmati aljahli walsirki walnifaaq walimlaaq sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa saxbihi sawi faax wa ala man tabiahum bi ixsaanin fi jumlati afaax amma baadu fa haasa alyowmu yowmun mubaarakun fih yowmu mubaarakun walana fihi sheyun lam nusharik fa ahmadu llah tabaraka wa taala ala ma jaara bih فيه للمنتقى عليه السلام بجميع مقتفي فإن هذا اليوم يوم أكل وشرب وعتق بفضل من جاد بفتق رطق فمن شكر الله تبارك وتعالى فيه فإنه يصر بكل ما من الخير يستفيه فاطلبوه فيه من الله تبارك وتعالى خيره فإنه تبارك وتعالى يصرف إلى خيركم ديره وتوبوا فيه إليه تبارك وتعالى من جملة العشان fa innahu yaxfiru lakum wa yakufu ila xayrikum sa tuxyaan wa tawajjahu ila baadi ila rabbikum kitaabi wa sunnati wal ijmaa fa inna allaha tabaraka wa taala yakfikum man aba fihi al ijmaa bi jaahi sir xazawaati al murdiya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi sawi ardiya alhamdulillahi alladi hadaana li haza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulilahi alladi lam yattaxis waladan walam yakun lahu sharikun fi lmulk walam yakun lahu waliyun min adulli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun auzu billahi min shaytan rajim bismillahi rahmani rahim la hawla wala quwata illa billah alliance bokki julli yi fi teew yépp bokki taalib yi fi teew yépp ñu ngi leen di nuyu kenn ku si tur ak sant te di leen baalu àq di leen baalu àq baax a baax te xam ne métti ñu métti na ci ñu lool tiis na ci loolu tim bëgg jox yës ñu àll yi mu àggale kàddu yi rek waaye ñu jël sant rek te dellu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam jën sëñ Cheikh Khadim di leen nuyu turu sëñ Abou Barak mi nga xam ne mooy jëwriñ Cheikh Modou Fadal mu jël kàddu googu ci loxo Cheikh Modou Bachir mi nga xam ne mooy jëwriñam waaye ñu wax ko kàddu sëñ Abdou Fatah mi nga xam ne mooy kàddu kër gi loolu lépp nuyoo bi mi ngi tàmbali jóoy jëm lépp ci Cheikh Mouhamadou Mountakha ak njabootu Sëriñ Tuubaa gépp di nuyu mbokki jullit yi fi teew yëpp ak mbokki taalib yi fi teew tey fàttaliku <coughs> bis bi nga xam ne li ko tax jóg bisu sunna la bis bu day bu daw yàlla na waaye bisu sant yàlla la ndax Seydina Ibrahima alayhi salaam moom la gént moom la ma géntoon te ku ne xam ne géntu yonent irham lay nekk ba mu géntee ne doom ji dama sama borom neen naa rëy ko tontu yàlla yaa abati fi xel maa tuum a sotti jëriñ incha allah min sabirin daa fi ko ci bay muññee ba ba nangoo loolu na nga dogal yàlla sama borom jotee ko am xar ñu wax ne alhamdulilah ñeenti xa ñeenti ñeenti ñeenti xaaj cent xaaj cent ñeent yi bu njëkk bi Ibrahima sant na yàlla mi nga xam ne moo ko bindoon mi noon rey doom te reyu ko beneen bi Ibrahima Ismaayla dafa rey sant na yàlla moom mi xam ne ko rey te reyu ko beneen bi yaay bi sant yàlla moom nañ rey doom ci ñàkku beneen bi sant yàlla moom xar mi nga xamante nii ci bopp waaye sayidna ji astawa moom mi nga xam sa ba xam ne jóge na àjjana dalaa ci àjjana saasi kon bu fekkoon ne bis bi amutoon kon ne ko sa doom ngay tewasté kon yaakaar ni ñu di bëri nii kon ñu ne fàttali ko rek te xar mi ci boppam du kenn du ko jaay kenn du ko maa ngi jégalu baax kàddu yi de xam naa ne metti na ci man a tis na